man moom Birama Ndiaye man dama koy boole ñooñu rek mais dañuy faral di wax ne boo doon seet li ñuy wax ci ceeb tey rek ñaata légume xaw ma ndax question kol lay doon pour yow. ñaata légume moo nekk ci benn plat wu ceebu midi. doy na question bari na de. bari na la mérite nag. ci tabaski bi en qualité ou bien en quantité. en quantité ñun moom ah, mais tabaski bi dafa am ñaar yu ci gën a siiw. mooy soble ak pomme de mais am na seen rakk-rakkaan yu ñuy àndal. mooy kii de. donc <laughs> pour pour wax la solo yi kon. Mm-hmm. horticulture ak ay produits am ci dundu Sénégal. te lépp foofu lay génnee ci horticulture bi lay donc soble dina am. Mm-hmm. du ci yem dina baax. Mm-hmm. te warul. cher te warul cher. waaw loolu loolu leer na la Birame fu ma ko ah, laay déglu. kon kon acteurs yi y compris l'État. été interpellé. Mm-hmm. effectivement. Mm-hmm. parce que tey am na arrêté. bi ñu defee négociation concertation sur pour la lutte contre la vie chère. Mm-hmm. à part ceeb ak yu mel ne euh, diw. néew na mbayeef denrée yu ci bokk. ndax pour nga mën a fixer ay ñëg day fekk ngay sos. produit yow ci sa bopp. waaw boo ko moomee yow sa bopp nga koy def. bu dee feneen lay jógee mënoo xaaju ne nii lay demee. Mhm. waaye ñetti légumes bokk nañ ci. Mhm. soble carotte. pomme de terre. lu arrêté bi wax ministériel. soble carotte pomme de terre. waaw warul cher. def soble ak pomme de bu prix bi yées trois cent francs bu dee fii la ñore mhm. muy oignon pomme de terre local. bu mu ko gën a néew. waaye bu mu ëpp. cinq cent francs ci biir at mi mu ne même arrêté bi mu ne bu dee soble bu jógee bitim réew ak pomme de terre bu ñu ko def prix bu yées quatre cent waaye bu mu doon prix bu ëpp six cent loolu la arrêté bi wax. loolu la arrêté bi kon loolu te loolu dafa wéeru fu wér maanaam loolu boo ko doxalee boo seetee li kilo pomme de terre di dikk ki koy bay mm-hmm. parce que prix c'est en fonction de structure. Mm-hmm. maanaam lim la dikk d'abord. maanaam li nga def pour am ko mhm. bu dee ki koy jënd ci yow lim ciy teg pour yóbbu ko jëlee ko ci yow yóbbu ko fa mu koy yóbbu ak lim ciy teg pour am ci dara noonu la prix di taxawee mhm. sinon da ngay yeew rek ne prix bu ma neex du noonu te am li ñuy wax une structure de prix mhm. kon boo càmbaree li muy dikk béykat bi bu ko ñorlee ci wetu toolam ba ci marché détail bi ak marge ñi ci yëngu yëpp prix yooyu ma wax jël na ko en charge. bu soble bi mënul dépasser bu Sénégal bi 400 francs. Eh, exact maanaam mënul weesu. 500 francs bu dee fii la ñore. bu dee fii la ñore. waaye nag du yées cent francs. ok bu dee bi jógee bitim réew bu mu yées 400 francs mais bu mu paasee. 600 francs 700 lay jar kilo bi ci marché bi. foofu laay ñëw kon li ci des mooy concertation boobu bi ñu koy def ñëpp a toogoon. Mm-hmm. acteur chaîne de valeur bi yëpp. depuis kii nga xam ne jaay ay intrant jiw matériel agricole yooyu mooy liggéeyam ñi ak ñiy leble sax banque yi ba ci ki koy jaay ca HLM waxin la ci taabalam acteurs yi yëpp. ñëpp ñuy wax les stades de commerce ñu ngi ci woon grossiste demi gros détaillant ñu waxtaan ba juboo ne lii bu ñu ko defee yenu na maanaa war naa mën a dem noonu la demee ne li may wax kenn mënu ko dindi ñii la demee waaw kon juboo nañ ci loolu nag nekkul tabaski bu jub si moo war a tax ñu génn cadre yooyu mu des kon lan un travail de contrôle et même quelque part entre guillemets moi je veux dire de répression mm-hmm. si mm. parce que nag bu ñu nee nii la war a demee ba ñu juboo ci na demee noonu ku ko jàdd ñu delloo si la ci yoon wi Mm-hmm. dama gëm ne noonu la war a demee. mais man soble bi may wax nii 700 bi avant tabaski la de. waaw kon léegi nag normal nii moom lañ koy jaayee de. donc ma jàpp 700 donc ça veut dire que tabaski mun na gën a yokkuwaat. te fii ñuy wax nag. Mm-hmm. soble bu ñuy jaay bu jógee bitim réew ci di ma man mën nañ ko vérifier ARM. Mm-hmm. lépp ñore. instant bi amul kon kay war na gën soble local moo fi ne. pomme de terre moo fi ne. kon lii bëggoon naa ko leer pour wax ni njëg yi. wa su ma wax jooju ma wax bi may ubbi foofu laa ko teg maanaam mën nañoo jël mesures yi nag ba charte yooyu ñu jël kenn bañ ko xët. Mhm. pour que sénégalais lambda bi jëriñu ci. Mhm. soxna Maria mi nga xam ne xëy na euh, ndab li rek moo ko booleeg soble ak pomme de terre <laughs> mais kooku ci ñi tax président dugal ay milliards ci jiwu pomme de terre bi ñuy importer pour béykat bi mën koo béy. Mhm. dugal ay milliards ci engrais bi moom soxna Maria moomu ci ñi tax président def ko ci la bokk. mooy le sénégalais lambda qui est consommateur. xamul ndax soble ci suuf lay jur wala ci kaw. dëgg la. c'est subvention. Mm-hmm. fonds public la. Mm-hmm. kon bu ñu lor ñi nga xam ne consommation rek moo leen boole moom ci ci Sénégal yi lañ bokk te ñëw nañ géew ndax président ñëwal na leen géew. Mm-hmm. ok donc loolu vraiment c'est des éléments yoo xam ne bëggoon naa ko indi. pour tontu sa laaj bi nga xam ne. Euh, bi bi bi wax. ne ndax mën nañoo dalal. xelu consommateur réponse bi